سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله سبحان الله العظيم لا إله إلا الله hasbunallah wa kon ñu ngi lay gërëmaat bu baax di la ñaan itam nga jottali ngërëmu sëriñ bi ak ñaanam ci njiitu réew mi muy président Macky Sall ak ñi koy jàppale muy delluwaat itam di ñaax bàyyi xel ci waxiin bi bàyyi xel ci jëfin bi bàyyi xel ci comportement yi ndax nee na nga ñëw taxaw ne ko jox ma sa baat ma defar la defaral la soo ko gungee ak wax joo xam ne neexul a dégg bu la bëggoon a jox baatam yi dootu la kon faw ñu waddu làmmiñ yi gunge ko ak wax ju rafet ak comportement wax bu rafet ba loolu bu amee ca ëllëg sa di altine ñëpp mën a xëy dem liggéey loolu sëriñ baa ngi koy ñaan di ñaan itam mbas mi nga xam ne moo nekk ci àddina te lu bari mu gàllankoor ko ci doomu aadama yi ak seeni koom-koom ba feeñ bu baax ñëwit ci senegal jaaxal leen lool sëriñ bi ne mi ngi ñaan ci boroomam ànd ko ak nawleem diina nawley diinam yépp yàlla jële ko ci àddina bi raxas ko ci senegal ak Afrique yépp di ñaan itam jàmm ji nga xam ni moo am fii ci senegal te lépp yàlla di ko delloo ci mag ñu baax ñi nga xam ni ñoo fàkkoon senegal ci wàllu diine bàyyi fi njaboot gi nit ñi di leen déglu ñu ngi ñaan yàlla njaboot googule yàlla leen yàlla aar waaye jàmm ji yàlla na ko yàlla gën a suuxat wax naa sànq bi ñu toogee ci sa bureau moo xam ne Sénégal bu doon benn jëmm ñaar ko séddoo أكلي في دينه ما أملك كتش أبل مرامي ما يكلي في دينه ما أبل مرامي ما أبل أتالي فين لأم من ناسك سنور بكون أخي مفق سبت بكون أخي مو يول سكون أخي مو تيل بكون أخي مو كينل لولا أتامن نكو waaye kenn mënta forcé doomu aadama mu bëgg la munu ne boobu doole yàlla mayu ko kilifa diine nag li ko yàlla may mooy day liggéey ci xol yi bu liggéey ci xolu doomu aadama bi bu ko woy mu wuyu ko bu ko ne tëddal mu tëdd su ko ne jógal mu jóg moo tax bu ñu wootee fépp fu nit mën a jóge te gëm leen dinañu ñëw ñooñu ñaar nag bu yàlla defee ci suturam ñu déggoo juboo bokk réew mi di waxtaan dama wax ni réew moomu bu ñu xëyoon takk seen biir te ñu sax ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci taranga te loolu la yàlla jox Sénégal moo di ñi fi nekk te yore pouvoir bi ak ñi fi nekk te yore wàllu diine juboo nañu déggoo nañu ñu ngi waxtaan ci seen biir ba lépp loo xam ne tey bëgg naa jaaxal askan wi bu kenn ku ci ne taxawee fa nga war a taxaw yàlla di jàmm kon loolu itam seen baa ngi koy gasal bu baax di ñaan yàlla jàmm jooju gën a yokk bu baax a baax di la gërëm ci taxawaay yi taxawaay yi rafet na comme nag njaboot geeg sëriñ bi wax nañ la ko nga xamee ko noonu ñu di la ñaanal nag wax ci gudd na waaye lépp xerte la ak kontante wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله سبحان الله العظيم لا إله إلا الله حسبنا الله